الناس ndax da ko waar ci diine waar ko ci lislaam war ko ci xadis loolu nag jikko yu rafet yàlla ba muy tagg yonent yàlla Muhammad ci jikko rek la ko tagg wa innaka la ala xuluqil azim ngay nit ku di nit ku yiw di nit koo xamante ni Sénégal gépp bëgg a jaxasoog yow ndax sa kàddu yu rafet laaw ku dégg sa kàddu lu mu doon def ci lu baax da koy yokk lu mu doon def ci lu bon dana jéem a defaraat jikkoom ndax sa kàddu yu rafet yi nga yëkkati di ko lancé partout dans le monde ñëpp di ko dégg Europe ñi ngi lay déglu Asie ñi ngi déglu oustaz Modou Fall ndax kalimatu moom la yëkkati mu rafet ku ne mën koo dégg ñi ngi lay ñaanal sa bis bii yàlla na sa njiglaay yàlla na ko muurloo yàlla nga dund ba yónni daraja rasulillahi ndax yow sa lépp génn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax tey tànt tey kenn xaju li ko waral nag mooy sa nga xamante ni tabaarkallaa ñoom ñoo bokk nekk TFM. nee na maag ñoo bokk nekk TFM. yàlla def sama diggante ak ñoom mel ni mburu ak soow. madame ba mii tabaarakallaahu moo leen jiite. Émilie mi ngi nii toog ci wetam tabaarakallaahu soxna ay moom it mu ngi nii toog kenn desul sama jigéenu bopp tabaarakallaahu àdduna bi yëpp xam sama diggante ak moom muy yaa awa jéey moom itam teew na tabaarakallaahu ak samay jigéenu bopp yi nga xam ni mat ak ñoom tëdd rek moo ni tàqale wax nga dëgg de muy waa Laméral mën naa ci seede mamaa ngi noon toog mboj soxna Diya seen madame Diong ak soxna Fatima ñoom ñëpp. jóge fu sori te ku ne xam ni banlieue bi ni mu naqaree ñëw waaye seen pas-pas seen mbaax seen xol bu rafet ak suñuy diggante ni mu mel looloo tax ñu def teewaay man nag tey munu maa wax xol bu sedd daal doy na ñaan maa ngi ñaan ku fi indaale aajo yàlla na ko yàlla fay yàlla defal leen teraangay àddina defal leen taraangay àllaaxira gërëm naa leen ñoom ñëpp xale bi nag maa ngi ko tuddee sama doomu turandoo muy sama taawu turandoo bi sama yaay di ñëw fii ci kër gi fekk na moom mu màgg waaye dafa taxaw sama yaay jàppale ko booba sama yaay amugul doom di fi doog papaam moom may ko premier njëkk rafet na kon soo amee doom moo ko moom tabaarakallaahu tabaarakallaahu waaleykum salaam waaw dëgg la ndax fii yow macha allah yow macha allah Fall fi nga toll si jamono koo jox cër da koy jël waxuma laak tur tuddee doom waaye dangaa jël lépp dindee ko sa deret Fatou Bintou mi li nga wax rek papay Fatou Bintou lañ la tuddee nga jëlaat bi jox ko Fatou Bintou kon yow macha allah desalatoo Fatou Bintou dara desalatoo ko dara. Saar Saar sama tata yow seede yooyu nga yëkkati am na solo waaye yaa awa rasul mi tubaarkàlla day nit ku baax ku ne xam ko ak Oustaz Modou Fall. muy nit ku baax di nit ku sell di nit ku yiw yaa awa jéey tabaarak nee na xanaa mi ngi leen di gërëm rek ni ma ko waxee woon ni ma ko waxee woon rek tey daal bisu mbégte la tey daal bisu mbégte la Serigne Cheikh Tidiane si nee na Serigne Cheikh si nee na nit kenn du ko xeebal bisam nit kenn du ko xeebal bisam kenn du ko xeebal soxlaam kenn du ko xeebal soxlaam kenn du ko xeebal sëriñam kenn du ko xeebal sëriñam te lii nag laa am nag te ñii rek laa am. mooy sama bis. mooy sama bis. te su ma xewlee. te su xewlee. télévision Futurs Médias déplacé wu ñëw télévision Futurs Médias déplacé wu ñëw. loolu sama xol sedd na ci loolu sedd na ci. ndax bu ma génnee fi di liggéey ndax bu ma génnee fii di liggéey. ñëpp xam nañ ni ñëpp xam nañ ni. fenn rek laa jëm fenn képp laa jëm. muy Futurs Médias mooy Futurs Médias. kon buñ fi ñëwee. kon buñ fi ñëwee. mbégte ci man mbégte la ci man. maa ngi kontaan ci ñëpp ngi kontaan ci ñëpp. yal na ma yàlla bàyyee na ma yàlla bàyyee ak ñoom. yàlla bu seytaane yàq yàlla bu seytaane yàq suñu diggante. yàlla defal leen xéewal yu yaatu yàlla defal leen xéewal yu yaatu. ci darajay Seydina Mohamed ci darajay Seydina Mohamed. kontaan naa kontaan naa. jërëjëf bég naa sama xol sedd na. kon kàddu yooyu moo jóge woon ci Oustaz du Fall borom bis bi. ñi ngi koy ñaanal bis bi yàlla nañ njiglaayam bis bi yàlla nañ muuro tey nag nee naa ko fii dana xat ndax c'est merci c'est trop merci c'est merci beaucoup sa baax na baax na bari na Oustaz Modou faal amoo sens interdit ci réew mi ak bi tim réew loolu li la ko may nag damay da ngaa génnal Seydouna Mohamed ba jàng jotee nga jàng ba dañ cim réer xam sa bopp defar sa jëm ba ku la gis bëgg la waaye defar sa jikko ba ku jaxasoog yow dootu la mën a muñ